Euh, waaw satisfaction satisfaction parce que nekk na travail boo xam ne travail d'une longue haleine la parce que ASC Guney Seng ñun dañoo formé 2015 dajeeg moom final senior 2017 mu gagné ñu xale yi ñoo ñëwoon seetaan si Guney Seng dóor ñu 1-0 ñuy jooy dem ñibbi quartier bi ñu toog ba tey 2022 final édition 2022 ñu tuyee ko tey le 28 janvier 2023 booy ñëw jël revanche boobu loolu amuñ lu dul kontaan ci contentement la ñu am Et ci profiter d'ailleurs, de féliciter encore le coach, le staff technique, les dirigeants de l'AIC Passif et les joueurs aussi. leen wax dire que vraiment, en tant que président, content de nous. Wow, AIC Gounaï 5, nous allons leur dire que l'AIC est mis ngeen final mis ngeen coupe comme ñun amaguñ woon da ngeen ñu may bii leen di encouragé di leen ñaanal euh, jàmm ak salaam ci édition yi des final bi nag ñu ngi ñoom ñoo ngi naataange que le meilleur gagne de l'Est je suis Pikinois de l'Est ah waaw <laughs> kon je suis naataange <laughs> jaay merci